ak mboolem njabootu sëriñ bi yëpp eh, di nuyu bu baax gi nga xam ne bokk na ci liggéey eh, daanaka moo jiitu liggéey bi moo jiitu jëwriñ liggéey bi sax muy suñu xaadim Mbàkke moom suñ ko soxla mu Cheikh Amadou Mountakha Bachir ak jëwriñ alxayri tey dogal ngant bu baax borom xam yi nekk ci eh, biir muy sëñ sëñ Ablaye Ndoye ak sëñ Moussa ak sëñ bu ma limee jum ci waxtaan yi nga xam ne moom lañ ñu gars yi def ta lootañ loota ci lool di dogal ngant mboolem borom xam-xam yëpp rek kon na xam naa dañ ci yi eh, rek eh, wax wax tuuti rek li nga xam ne moom lañ ci jot a tënk te ko ci ak liñ ci jot a xam kon xasida Tuhfatul Mutadawwinin doy na rek ci ci ci waxtaan rek eh, ñu ne la bindum sëriñ bi la ndax sëriñ bi moom lépp lu bind rek day am wàccuwaayu karaamati xattu yeddi ndax li ma naan sëriñ bi moom waxul karaamati nuur daani yeddi waxul karaamati Tuhfatu yeddi waxul karaamati minanu yeddi daf ne karaamati xotti yeddi kon nag. Eh, eh, lépp loo xam ne xattu yot yi sëriñ bi la eh, dog dugg ci biir liggéeyam bu boobu rek day dugg ci biir karaama jooju loola nag ca yañ xam ci jiitoog lu jiitu géej géeg yam bi nu géej gi ginnaaw beeg yooyu yëpp rek day am barke boobu loolu sax xëy na dañu bañ a guddal waaye kon ñu indi ci lenn ci ay xeetu xew-xew lu mel ne anecdote yoo xam ne da ko da ko da ko da koy firndeel ci lu bari waaye nag loolu tax du ñu ko kon mu xasida gi ñuy waxtaane muy xasida toxul ma doon dana xayn dañ ciy dugg rek te xam ne eh, am na xasida gum xaw a nuróol lool eh, ñu koy wax ma jaalibatul masara wa ma dara nga xam ne daanaka lu bari ci li ngay waxtaanee ci xasida tuxatu mata daraxin daanaka day mel ne sëriñ xaw na la faa leeral lu bari bari bari ci liñ naan muqaddama wala bokk introduction kon ñu jublu ci waxtaan wi comme ni ma ko waxee woon ci eh, xasida ak sindi rek xasida yi moom comme dañoo bari te it xasdu li muy tekki mooy jubluwaay sëriñ bi mel ni xasida gu rek am na jubluwaay bu mu ci am li nga xam ne bi muy bind Nahjul Xadaa'il Haaj eh, mag ñi ñoo dajaloo nu mu ko waxee ci biir xasida yi ñenn ci ci fere yi ñoo dajaloo ngir sàkk lu ñuy lu ñuy teggi nu ñuy lu yóbbaloo ngir faju aajo ak ngërëm léegi nag kon day mel ni jubluwaaye eh, eh, Nahjul Xadaa'il Haaj mooy jàngale ay teggin kon nag jëmmi jëmmi bind mu nekk rek moo waral ñu naan xas xasaid wala xas wala wala xasida kon xasdu la jubluwaay sëriñ bi ci biir bind mi moom ngay jëk bayyi xel kon li ma naan loolu moom boko ko xam rek leen li ci top yëpp ay ay ay ay leral lak ay junjo ki ak ak ay sew-sew yo xamne ne euh, nit ki da kay gëssu rek lu ko defé lu ci bari niñ koy xamé ngeen koy xamé rek waye nak li nga xam mom ñepp mën nañ ko mën nañ ko tambalé ci xam gi moy djublu way sëriñ bi di am bu dee bind xasida kon way mo tafatal mo dara hañ sëriñ bi waxal nako ko ndax dafa ni fi tawassul bi asmaul fadlin ndax dama nan xasida mom euh, bari na bari na nuñ ko mëna nuñ ci mëna tek talo lu mel ne boo duggee ci biir wala boog boo jéemee lijjanti ba xam sëriñ bi jamono jan la ko bind euh, moom ci dox bi mu doon dox wala fi mu ko fekk wala euh, li tax mu bind ko circonstance yi mooy mooy zarfu zaman yi euh, waaye nag tur wi nga turu xasida gi rek mooy li njëkk a tegtaloo ndax jëmmi tur day tegtali jëmm jëmm day tegtali tur masalan fi ne buñ ne woon yusufal xayri ci ci gàttal donte gisoo ko day mel ne image bi daa taxaw sa kanam kon nag xasida noonu la mel tur wi tur wi day tegtal lu bari Euh, man nak da nan euh, xasida gu ma gis damay seetlu ne serigne bi day mel dako dako ko dako xaj ñaari xaj wala ñet xaj ndax bu to toxatul mu dara hayn lamay sel sa bu serigne bi ne fi rek fi bat ba cey top day way serigne bi bi muy bind manam mën naa mën ci joxe exemple bari lu mel bu ne to toxatul mu dara hayn fi tawasuli kon xasida ak tawasul la ni ko defé ci sindi di waye nak bi asmaayil mufaddali ci turu ñi nga xamne borom yi ngeenel leen borom yi wàccuwaay yu am daraja lañ ñu suñu borom teral nga xam ne ku ñaan ci seenu barke suñu borom dana ko nangu lu mel ne fi mu ne bu ne toxfatul euh, toxfatul awaax fii taqmis fii taqmis astaghfirullah kon xasida euh, xasida euh, jéggalu la ak tuub lu mel ne fi mu ne bu ne nuur daal ni fii xidmatil aami xanil aaray ni kon liggéey bi la loolu la ci loolu la ci lu mel ne bu ne bu ne bu ne minal baaxil xadim fii mujizaati raaxil max doom xasida xasida mujiza la sëriñ bi da cee nama feeñal lenn ci mujiza yi nga xam ne ci moom la feeñ kon day mel ni boo nee fii rek baat ba cay topp dana la tegtal lu bari kon nag euh, rufa dama comme ni sindi ak yeneen xasida yu bari xasida ak tawasul la sëriñ bi di ko def defoon ko ci ci ci xasida yu njëkk yi nga xam ne daanaka mën nañoo jàpp ne ci xasida yu yi jiitu yi la bokk euh, sëriñ bi tam joxoon na ko euh, Cheikh Ibra na ko suñu Adama Gueye ak ñu bari ci mag ñi ñu daan ñu daan ñu daan ko barkeeloo daan ko jàngu jàngu baax nañ sax am na ñoo xam ne suñ sëriñ Cheikh Fall daan wax naan ah sëriñ mag suñ ah Bamba moo bari sañ-sañ day fekk dana góor yàlla mu tibb ci jox jaam ñuy jariñoo Ah, nga xam ne ñoo loolu ba mu koy wax tux la doon junj te am na ñu wax tamit ne sëriñ sëriñ bi junj na junj na Cheikh ci biir eh, ci ci biir xas gi kon xëy na ci danañ ci mën a ñëwaat waaye kon ñu xam ne xasida ak tawasul la eh, kon nag xëy na ñu dugg ci biir xasida gi rek eh, du fiiri sax waaye ñu seet luñ ci mën a tënk rek ba mbokk taalibe bi mën koo jëriñoo buñ noppee ñu xool yenn njëriñ yiñ ci am buñ xoppee noppee ñu xool lan lañ ciy soññantee comme ni ma ko waxoon rek ci ci vocal bu njëkk bi sëriñ bi nag day mel ni bi nga koy bind dafa am ku ku koo xam ne sëriñ bi da ko da ko bàyyi woon xel lool muy imaamul Ghazali nga xam ne sëriñ bi indi lu bari ci moom ci Masaalikul Jinaan ak yeneen i bind di indi référence yi moom ci wàllu tasawuf kon sëriñ bi boo demee ci xasida gi ma naan day leeral lu bari ci Tuhfatul Mutadarri'in muy jaadibatul masara wa daafi'atul madara sëñ mi mi ngi jox naan qaal imaamul cheikhuna al Ghazali la sha la daala zaridwani andal wali faman yuril nail al qada al haji huna wa fi ghadim bila kon day melni imam al ghazali eh, serigne bi neena waxna ni eh, tawasul dal eh, mom limi tek dal moy nga ñaan sa borom ci dara nga ñaan borom sa borom sa borom dara te jaare ko ci ñi nga xamne japp nga ne sun borom jox na len waccu way wo xamne taral na len dara nga jo xamne yëkëti len fa bopam jégué na len jégué go xam jégué nañ ko jégué go xamne bo ñaané tawassul ci ñom sun borom dara fa ci imam ghazali nak wax ni ñoñu nak ku ñaan ci seen ci seen daraja ak seeni seeni seeni jëm suñu borom dana fa ci aajo kon non ko noonu mako waxe ci jaarbatul mu jaarbatul euh, masara euh, wara fa ngul dara serigne bi non la non la koy leerlee bu jaarbatul masara nak serigne bi danaka limay bëgg wax yëpp danaka ma ngi koy ci wax ci biir waye du jar euh, ñukoy détaillé moy serigne bi da ci indi ci tofu mu dara mu dara en turu turu yo xamné bari wana naa weesari tan gis lu jiddu serigne bi yo xamné ne nan képp ku ñaan ju jëme ci ñom tawasul ci ñom suñu borom dana ko nangul Euh, léegi nag euh, boo xoolee nam defoon ci si ndiidi euh, alxuraan dafa indi ñaar fukki ñaar fukk juróom ci yeneen yi nga xam ne mursaloon lañ leen di anbiya nabilu mursal ñaar fukk ak juróom yooyu nag sëriñ bi da ci indiwaat juróom yi nga xam ne ñoom la ñuy wala ulul azmi ñoom la sëriñ njëkk tudd ginnaaw ba mu ba mu ba mu sante boromam ci na mu ko waxee foqul te yaakaar bi yàlla ba mu jeexee nag mu tàmbale indi nag juróom juróom ñi nga xam ne ñoom la njëkk indi mooy ulul mi nga xam ne ñoo gën a tedd ci mbindeef yi ñoo gën a tedd ci yenent yi ñoo gën a tedd ci biir anbiya yi ñoo gën a tedd ci biir mursaluna yi kon nag eh, eh, eh, wiseer yu bari daa naan képp ku ñaan tawasul ci ñoom suñu borom dina ko nangu ginnaaw bi dem indi na indi na al ansaratul mu mubashar bi janna yi nga xam ne fukk yi nga xam ne yeneen salaam waxoon na ni ci saxaaba yi ñoom daal aj àjjana ñeel na leen ndax danañ danañ danañ danañ tabe àjjana indiwaat na itam ci saxaaba yi ñeent ñi ñoo xam ne dañu xam nañ ñuy nekk raasixuuna bil ulum nga xam ne ñu ñu xejji ci wàllu xam-xam lañ lim indee ci biir euh, al-ansaratul mubashar bil janna am na ci ñeent ñoo xam ne ñu xam nañ leen bu baax muy xulafaaw rashidun ba tey it euh, nga xam ne Seydina Ababacar Seydina Omar Seydina Ousmane ak Seydina Ali euh, noonu ñu leen xamee am na sax ku muy junj a Amma Rasul ci Jalbatul Masara mooy Ibnu Abbas mi ngi koy tuddaat fii moom it ci lim boobu la bokk kon Euh, am na ci ñeneen ñoo xam tamit sëñ mi ngi leen mi ngi leen indi muy azahidoona fi fi dunya euh, am na ñoo xam ne juróom-ñetti saxaaba ñoo xam ne dañoo dëdd àdduna lool ba suñ euh, ñëpp ràññee leen ko boo xoolee mi ngi koy indiwaat ci jaalibatul masara di indi seen lim faaqihuuna tamit ñi nga xam ne ci saxaaba yi dañ leen a borom xam yu mag mi ngi leen ciy indi indi na ci itam ñeenti borom ngir yi mooy fuqahaaw yi Euh, mooy imam Malik imam imam euh, imam imam Shafi ñooñu ba mu jeex indiwaat na ci tamit euh, ñenn ci soxna seen a indi na ci ñenn ci ci doomam indi na ci turu malaaka yi nga xam ne itam ñoom ku ku ku ñaan tawasul ñoom suñu borom dana ko nangu kon loolu képp tënk la ci nga xam ne kon xas rek tawasul la te ñi nga xam ne barke borom yi barke lañ suñu borom suñ tubaa ñaan na tawasul ci ñoom ngir suñu borom faj aajo yi képp koo xam ne mi ngi jàng xasida gi di ñaan di sul di tawatul tawatul njub jëm yooyu kon boo xoolee rek eh, ni ko sëriñ bi waxee rek wax waqbal bii nazmi haza ya karim waaye waxab li man bii yuna jiimaa yërëm kon sëriñ bi ci moom moo moo moo ñaan suñu borom képp koo xam ne yaa ngi jàng xasida gi lépp loo xam ne sàkk nga ko ci ñaan nga ko ci xemmeeg nga ko ci ut nga ko ci suñu borom defal la ko eh, te nee suñu borom nan la ko defee mooy waxab li man bii yuna jiimaa yërëm kon nag képp koo xam ne yaa ngi jàngatu Fathul Mudabbar di am dara doo cee sàkk wala nga ko ñaan suñu borom daan la ko defal euh, li ñu ci njëkk a nag mooy li ma ne ulul azmi yi euh, damaa seetlu bu baax ne euh, ba ci jaaliwatul masara sëriñ bi ni muy béree yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir gaa yi ndax ulul azmi boo xoolee juróom yi ñu ci indi muy jaalibatul masara ak tuhfatul mutadarain ku ci nekk dalaa dalaa dalaa dalaa ñaar lay boole benn bayit mu mel ni fii daf ne rabbi bi nuuhin wa bi ibrahima li xafir zunubi wa Euh, euh, bi mu noppee daal di cay teg ne okun bi Moussa wa bi jaay Aïssa wax ne dunya uxra Buusa kon euh, ak Nuux yent yàlla noo xam ne neñ mooy doyaa yenente yi moom mook Sina Ibrahima mi nga xam ne moom la suñu borom toppaloo woon yenente mi te royloo ko ko ñoom ñaar la boole benn bayit boolewaat yent yàlla Moussa ak yent yàlla Aïssa mi nga xam ne moom moom ruuxu la genn wàll gi ruuxu genn wàll gi jëmm la moom nga xam ne loolu jagleem la ci biir yenente yi yent yàlla Moussa itam wax nañ ne biir àjjana moom rek fay sax sikkim ñoom ñaar ñooñu sëñ bi boole leen benn benn benn bayit waaye yéen tamit nag da koo ber bayitu boppam nga xam ne moom doon gum doon uh, kenn loolu da nga ko ci seetluwaat mooy bi Muhammadun Rasulullah alayhi xayri salawatullahi bi muy bintam la ko defee ndax dafa def yaa rabbana bi eh, bi eh, nga xam ne ginnaaw bi nag ñaari bayit yi topp la ko defee nii mu mu jeexee noonu nag mu teg ci ni ma ko leeralee eh, ñenn ci xulafaa rashidun al ansaratul mubashar bil janna bi mu mu teg yi bi mu noppee teg ci ñenn ci doom doom yonent bi salaam mu mel ne indi na ci Ibrahima indi ci sët yi Hasan ak Ousseynou indi ci doom yu jigéen ñi indi ci doom yu góor yi boo xoolee bi xurmata tey Ibrahima adwan alayhi bishir wa takrima bi mu noppee mu teg ci la tàmbalee teg jigéen bi jaay Fatima af suñu an kulli may jur nii si bu ñu xoolee itam bi ba ci biir ci la tàmbalee eh, indi rek ni ma ko waxee xoxaaw yi mag yooyu ak ak ak azahidun yi ñi nga xam ne daanaka ñu dëdd woon lañ ci saxaaba yi bañ xam leen Euh, bi mu je bi ñooñu wéy mu teg ci euh, soxna seen alayhi salaam ki ñu ci njëkk a xam muy Seydina Xadijatu euh, Xuwaylit bintu Xuwaylit mu mu mu mu jox ko bayit boobu daan ne ko bi ummina Xadijatin abdil amal nañ ko xamee ba ba ca Zeynab bi na Zeynab ba Zeynab a Zahar kon nag bi mu noppee ci bayit boobu ca la ca teg ñeent ñi nga xam ne ñooy borom njiir muy imam Malik imam Shafii imam Abu Hanifa Anbal ñooñu la ca teg daa daa di nag. buñ seetloo rek dafa daal di tàmbale nag li liñ naan ñaan euh, ndax lista ji bi bi jaay jibril saj su ali wa ballixa na moom la xarijaali daal di ci indi yenent yi nag soo ko nag euh, tàmbalee mel nag liñ naan wajaxal wajaxal sëñ Tuubaa joo dégg rek mooy defal na ko suñu borom defal na ko ba noppi boo xoolee nag mu mel nag dafa tàmbalee indi dara lu muy leeral ci wane ne mbooleem lu mu ci ñaan suñu borom nangul nag ko wajaxal tawasul yi nam ko waxee la woon xasa euh, wa inal yow ma zo tawasul yi la wax muy jeexal nag mu ne wajaxal tawasul yi li man bi bii sangatat daal di wax firli bii kon loolu nag tegtal la ci ñu xam ne noonu ma ko waxee rek ci ci muy tàmbali noonu noonu la ko suñu borom defalee ci jeexantal bi suñu borom nangul ko ñaan yëpp kon loolu mooy xëy na ci biir xasida gi liñ ci mën a tënk su defee ñu ñëwaat tuuti ci kaw xasida gi liñ ci mën a indi ci tegtal ci xeetu meen bayit yeeg yooyu wala bokk yenn ci liñ ci mën a xam ci asraar wala yenn secret yi waa kon na xam naa bu ñëwee ci wet googu moom moom moom lu mel ni sëñ Malick sa sa sa sànq ñooñu moom gars yi ñoom xam nañ xam nañ comme ay ay jàngat toxor yi daal gars yi xam nañ xam nañ ko moom toxor moom 58 bayit la ñu ko ñëpp xamee ñu xam ne mooy mux yi yaa mux yi suñu borom mi mi miy dundal moo tax ñu ne képp koo koy jàng da ngay dund nee nañ nag 58 itam boo ko dar boo da lay jox 174 mooy xayul xayoom ñu ñu ñu ñu bari xam nañ ne dégg nañ si sax mu wax ne xayul xayoom daal bu dul ismu lay azam nee mbolem ay aay yi yoo xam ne juñu nañ ne jàpp nañ ne ismulaay enzam juñu jiñ nañ ko buñ demee dañ ca fekk xayal xayum te amna secret sax bu kiimaan bu ci bu ci am ndax buñu xolé beuyit bi señu bi bind mo ci taxot mu dara xen muy alhamdullilah wa salla abada ala allazi bihi lana huda bara beuyit bu njëkk bi buñu xolé da daanaka sëñ bi da cee indi secret yu bare bare bare ci yoyu bimu dem ba ci bi tamit amna beuyit beuyit bayit bu bi nga xam ne ni abdurrahman wa bi Abdurahman sama xoolaani am na am na secret bu ci sëñ bi indi ndax xayul xayum jooju nga xam ne boo dar boo tux fatu ñetti yoon da ciy da ciy feeñ euh, euh, sëñ bi aaye ba muy war a toll mu tudd ci xayul xayum muy 1936 mooy boobu suulatul Ali Imran moom la ci sëñ bi moom la ci sëñ di euh, kon nag yooyu xëy na ñi min secret wala boog ñuy yëngu ci asraar danañ xam li bu ñu demee ca ca bopp suuratul Ali Imran kon yooyu nag xëy du du du du jubluwaay bi waaye ñoo xam ne rek xasida la goo xam ne sëriñ bi ñaan na ci lépp te fàggu na ci lépp nee nañ tam baax na lool ci képp koo xam ne da day day day ñaan dara euh, amul ci dara jenn ay joo xam ne ñett toxfatu attan na ko wala juróom-ñaari toxfatu kon euh, ñu ñu xamee ñu xamee ko noonu tey euh, jàll ci geneen wet gi nga xam ne xëy na mën na ci defaat ay gër kon xam naa ñu ngi jégalu lu baax vocal yi xaw a gudd yeeg yooyu ah, xam naa kon dañuy tënk leen rek ñaar wala ñetti vocal rek ci leen liñ ci xam ci njëriñ nga xam ne yaatu na lool day it lu siiw la lu ñu xam mooy sëriñ daal xam naan wàlliw bu yàqu bu yàqule toxatu bu ta dara an moo ci gaaw kon xam naa moom waxatuñ koo xam ne Euh, euh, pour def nit wàlliwu ndax wàlliwu bu tooñ suñu borom bañ bañ dégradé ko moom moo gën a lool euh, dañoo wax ne képp koo xam ne wàlliwu bu tooñ suñu la bu ko jàngee danañ danañ ko delloo garaatam te suñu borom du ca mooy da ko yéegawaat am ñuy wax ne sax ñeent fukki wàlliwu am ñeneen ñu wax ne juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki wàlliwu loolu dégg naa ko sëñ Basiru Touré mu mu mu indi ko juróom-ñaar fukki wàlliwu yu tooñ suñu borom ba mu dégradé dégradé leen kenn ku njëkk ki bu taxawee ci kanam di jàngatu foto ñeneen ñi ku ci nekk sa loxo nga nga teg ko sa mbaggu morom wala ngeen roofalante ko juróom-ñaar fukki yi kenn képp di ko jàng 69 yi jànguñu ko nga xam ne dañuy laalante rek suñu morom dana dana leen jéggal delloolaat si delloolaat si delloo leen seeni garaat ba noppi du ca yem waaye da leen yéegiwaat ci yeneen maqaama ju ju ju yees kon lool itam doy na am na tamit ñuy wax ne képp koo xam ne itam bëgg na borom kër wala soxna yooyu yëpp dara gënu ci gaaw toog mu dara ayn loo ci mën a jàng nag waaye li ci gën mooy juróom-ñaar suba juróom-ñaar guddi boo ko mënee juróom-ñaar suba juróom-ñaar ngoon eh, képp koo xam ne sax la ko di ko def di ko def maanaam dina ci am mm, lu kawe njortam eh, lo loolu itam xam nañ ne comme ni ñu ko waxee rek ñetti ñetti ñetti toxfatu eh, muy ñetti cinquante huit day jàpp cent soixante-quatorze nga xam ne mooy xayul xayum waaye tam mooy jàppat am wàllu dunya nga xam ne loolu waxtaan yu bari ñuy dégg mbokk bi di ko yaatal ñu bat di ci ko di ci faral di wax comme niñ ko xamé rek kon wërsek ak yëkkati ko ak daraja ak daraja ak tour mom ñëpp xam nañ lu da koy da koy mayé kon ñett yi wax nañ tam li ci gën moy boko mëne mënee jàng lu jiitu ngay julli fajar wala ginaaw fajar bo julle fajar ba noppi rek wala buñ noddé salatu bala nga julli fajar kon lén la ci njëriñu euh, xaside gi ñu xam ko bu baax amna ci yoy yo xam sax ñun euh, euh, def nañ ci expérience ba xam ko bu baax ndax yu ci bare bare bare bari da ci am yo xamne ne di day nekk xeetu jëfandikoo xeetu secret yoo xam du ñu yaatal waaye ñu xam ne baax na lool itam ci képp koo xam ne dafa toll diggante ci ci ci lu mel ni soxna ni nga xamee rek ni ma ko waxee képp koo xam ne daa bëgg soxna wala mu bëgg borom kër bu baax nag tànneef ndax bu ñuy wax tamit ci xeetu ñaan yi eh, eh, xëy na am koo nekkal lu mel ni soxna wala borom kër xëy na du lu jafe ndax yenn mën ngaa waaye nag tànneef ak ngëneel eh, boo gisee sëriñ bi di ko wax mooy moo moo mooy bu dee ñaan loolu moo a ñaan ndax suñu bari na fu mu ñaan suqalee ma axtaaru min nisaa yi dunya xuraa rab bi nisaay wala mu mel ne bikkat masunatan anil fahshaay tajur bil aqdaay wala saay suñ saa dee ñaan ci mbir yooyu eh, wala mu naan wa tawbatan xubilat muhammadan rafiqan ma jot salal bi diini yàllaahu la nee nangam day maye nangam ci xeetu soxna wala borom kër mooy tànneef yi moo tax ñuy wax waaw te loolu loolu moom ci jamono ji képp jar ko waaw wax nañ tamit képp koo xam ne dafa bëgg doom doom te eh, ko am na luñ koy jëfandikoo waaye eh, ñu xam ne xasida gi Ah, lu xaw a gudd la xëy na yoon yu du ko du ko maye waaye képp koo xam ne bëgg naa am tuutànk mu tëggoo am na nuñ ko ko nuñ ko koy nuñ ko koy euh, bindalee ñaanalee ko ko suñu borom dana ko defal tawféex ba ci sax ki nga xam sax daa bëgg am doom bu góor ci boppam am na am na am na am na euh, nu mu koy jëfandikoo bu dee ko am bëgg doom bu jigéen sax am na nu mu koy jëfandikoo ba suñu borom defal ko ci lu koy njort waaw ah, ay te yooyu yëpp bu ci nekk ñun ah, def ne am na am nañ ci expérience ndax euh, def nañ ko ba am ci ñoo xam ne suñu borom defal na leen ci taw tawféex Euh, bu yàggu dara rek am na ci mboktaale boo xam ne soxnaam da doon am matu daanaka fii ci daara ji la ma la la ma wooyee daan dafa xaw a sonn lool ñaari fan yi ma nga hôpital euh, benn bi nekk booru Palais xaw ma principal la xaw ma nga xam ne fa laa ko fekk ba may ba may dem laa waajal fii may waajal bi ma demee bi mu ko ko joxee rek ca la ca la ca la ca la matu ci saase daa daa mujj sax soxna si di ma woo ginnaaw bi mu weesoo di ma laaj lan la lan la lan la ci di jëfandikoo kon nag ñoo xam xamee ko rek dara gënu koo gaaw ci lu mel ne xeetu matu xeetu tawat xeetu lu mën koo rek gàllankoor yu mën doon ak xeet tawat tawat yi dab yi dal gàllankoor tawat yi dal yi dal ak góor ak jigéen ak yëpp rek bu mu ci doon rek daal ñoo xam ne suñ tubaa fàkk na ko te dara da gënu cee kawe doon gi mu doon binum Sëriñ Tuubaa rek na ci kon ñu xamee lenn ci lañ njëriñ ñi njégalu wax ci kàddu yi waaw leneen li ñuy tëjee nag mooy ni ma ko waxee rek kon bu xeetu njëriñ yeeg yooyu yëpp ak yooyu yëpp weesoo tam xam ne doon gi mu doon bindu Sëriñ Tuubaa rek ak bindum sëriñ bi Ah, ah, daa war yàlla ñu di ko jàng di ci ak di ko jaamu yàlla ah, ndax sëriñ moo xoon ne xayra xabadaati wa xayra sulami sama xaside yi maanaam mboolem lu ñuy luy yeggale ci yàlla maanaam tarbiya ak defare nee sama xaside yi ci gën gaaw wajal ma daay loo wa salawaat foo wa dangawaat dan ne sama am daay ak sama salawaat yi muy xaside yi yëpp rek yim bind daf ni mboolem ñaan gu nit mën ñaan ci kaw suuf sama xaside yi ñoo ko gaaw te ñaan ci lu ëpp waaw ah, mboolem tam xeetu jaamu yàlla ju ñuy jëf rek ah, def naa ko ci wajal xuruuf yi kulla ibada yaa ma li wala ibada wala ibada kon jëmmi jaamu jooju mu taxaw nga xam ne te loolu moo ñu fi indi rek ak jëmmi doon gi mu doon liggéey suñ tubaab duggaat ci biir liggéey mu doon liggéey na salam ah, te loolu dara gënu koo rëy loolu loolu gépp dafa doy yeneen lii rek moom mooy mooy njëriñu àdduna yi nga xam ne wala gàllankoore àdduna nit di ko dund muy am looy bëgg wala boog am looy looy feglu yooyu yëpp nag moom ñu xam ne bu ñu amee pas-pas di ko jàng ngir sëriñ bi ak di ko ak ko jaamoo yàlla yooyu yëpp day dugaale ci biir waaye nag du tee bu aajo faj fa taxawee rek ñu mën ñu mën koo euh, dimbale suñu mbokk taalibe yi euh, mën ko mën ko mën koo ndax euh, arme yoo xam ne jumtukaay la yoo xam ne suñ bi dañu ko jox ngir bu ñu demee ba jëmmi jamono duñ jéggaani fenn leen ndax lépp loo xam ne rek ay xeetu ñaan la lu ñuy jëfandikoo lu jiitu sëriñ bi sëriñ bi mu ñëwee lépp luy jariñ rek da koo da koo dajale bind ko ci biir def ko ci biir xasida yi noonu ma ko waxee ci asafurlah bii liñ maata jamia maata faraqale daa xatti minal xayri waaw euh, wasafal xel wasafal xel daa kon euh, ñuy jégalu wax ci kàddu yi ak vocal guddi yi di ñaan suñ bi defal ñu dégg ak topp te euh, suñu borom gën ñoo dolli ak njëggal ak tawféex ak yërmande ak ndimbal bañ sax ci liggéey sëriñ bi te te te bañ koo benn yoon kon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin subhana ma yasifun wa salamun alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi jégalu ñëpp Bulfate abone, Bulfate abone, Bulfate abone, Bulfate abone.